dëkk fii ci kër gii ñu nekk di réew Mawo jëkkëram bi woon daf ko woowoon Dakar waaye depuis ba mu ko woowee le 14 avril 2019 ba léegi ci lañu ñu géej am lu leer ñetti at famille bi lu ñu xam def nañu ko fu ñu xam dugg nañu fa lépp def nañu ko li leen yoon may lépp def nañu ko waaye dafay mel ni ñoom dey nekkuñu ci réew moo xamante ni daanaka yoona yoonay nit lii nga ni la la parce que bi mu saisir section de recherche mu def li enquête am bi PV bi nga ni li mu que ne Modou amul benn yoon bu mu bu mu weddi ne dem na ba ci ni chauffeur bi indi war Modou Yade ñu woo ko li ci gën a garaaw Modou Yade fay ay téléphone am génn réew mi ne du wëy ji mu dellusiwaat téléphone bi mu yoroon téléphone bi mu jël ko toj ko kenn amatul yenn preuve yoo xamante ni mën na wane traçabilité fi nga xamante ni foofu la foofu la jaar. loolu lépp bi mu amee PV bi dem si procureur ñu woo Modou Yade waaye procureur dafa wax ne.

loolu rek li tuambitenti tubaab daf koy wax disparition troublante disparition troublante loolu rek waroon naa tax procureur def sous mandat de dépôt ouvrir ben ben enquête judiciaire ci dossier bi Lolo, lolu, procureur defu ko ñu ne procureur ana ci fan le sukkandeku ba mom lii mu waroon ko moom Modou mu waroon ko placer sous mandat de dépôt pour que li nga xamante ni moom moo soxal PV bi ak fait yi ci wax mu leer mu jël dossier bi ranger ko ci tiroir yi da di koy def classement sans suite classement sans suite moy Lidal daal fi la léeb di jaaree tabi géej kenn dootu ci wax bi mu amee ñu defaat ay ba dossier bi ñu ubbiwaat ko si nous dossier le juge Mamadou Sek ne adressé une délégation judiciaire wa section de recherche C'est aussi le 28 décembre 28 décembre 2021 boobu ak la section de recherche Ce nga la sas pour nous def pour nous dem Nous kër gi nga xamante karo yi parce que Modou ci biir PV bi ne na mu ngi doon gas ci biir kër gi bi ko gendarme yi laajee mu ne dama doon suul ay galaaj dama doon suul ay galaaj lan la doon suul la mu doon suul ci biir kër gi ñun jaaxal nañu lan la doon suul loolu juge bi dafa wax ñële pour ñu exécuter loolu dem décaper kër gi waaye loolu kenn defu ko lan moo tax loolu donc ñu ne nag dafa jot ñu yéglu dafa jot pour dossier bi ñu mën koo jël en mai te tamit procureur war naa génn wax doomu aadama yi ne leen li tax mu bàyyi kii ci fan la ko teg en tout cas ñun posé nañu ko ay question ci loolu lépp lan moo tax mu bàyyi ko ginnaaw bi PV bi PV bi wane ne am na ay fee yu bëree bëree bëree bëri yu ñu mën a sukkandeku pour mettre ko sous su mandaa mandat de dépôt kon ba léegi mbir mi leer na waaye loolu lépp dara amu ci loolu nag bu amee ñu ne nag daf nekk ci réew parce que les juges prononcent le droit pour le peuple ñun la lire la justice, nous justice ñun la justice. Si defal justice boo qui ba ni dafa am yoon woo qui yoonu ku am ndey la ak ku amul ndey yoon am numéro procureur wala am numéro juge wala nga am numéro magistrat pour nga mën a am li nga bëgg ci ñoom loolu nag day graaw te nag gis nañu bu baax a baax a baax ne am na ñoo xamante ni suli woon nañu fi boobu dossier muy dossier Adji Raby Sarr waaye bi ñu ko souligné ci benn semaine génn ko sax kii nga xamante ni moom la ñu ci tudd ñu convoqué ko ba mu jur ay fukki nit ak ñeent yoo xamante ni ñàkk nañ ci seen bakkan ba état sax génne armée bi pour loolu waaw ndax dossier Lissa Tine dafa dafa dafa dafa jarul loolu wala ndax dossier Abira Adjira Abi dafa ëpp li saatin ay mbokk wala daf koo gën a dëkk ci réew mi wala boog Adjira ay Adjira ndax lii saatin daf ko daf ko daf ko dafa am ci réew mi akak ak yeleef yoo xamante ni lii saatin amu ko dinañu won état wu Sénégal dinañu won suñu justice ne lii saatin ci réew mi la bokk bawol ci réew mi la bokk c'est pas doom mi bawol nga nga dem justice ñu lay ate ñàkkal c'est pas parce que doom bawol nga boobu ak léegi ñetti at sa doom réer justice su Sénégal kenn du ci kenn kenn du ci addu c'est pas parce que doomu bawol nga parce que euh, lépp loo xamante ni dafa soxal bawol dafa soxal ak ak yeleefu Lissa Tine ñetti at a ngi nii papaam a ngi nii nelawatul yaandooratul daanaka lekkatul yaayam a ngi nii kenn xamatul sax nan lay niroo ci stress kenn xamatu ko bàyyi doom boo xamante ni toujours mu ngi jooy Nous sama yaay pour soxla sama yaay soxla sama yaay la soxla ñuy pour responsable le président Macky Sall di jël pour témoin les organisations internationales et les organisations féminines ci lepp lo xamanteni mën am bu bu fan yi ñëw ginnaaw ñu ndox ba paré bu lu am fi ak bobu comme ni mu ci ni mu waxee woon ci dossier Adji Raby Sarr def ci discours dañu bëgg moom ci wàllu boppam mu génn def discours ci kaawu Lissa Tine parce que Adji Raby Sarr ni mu nekk citoyenne sénégalaise noonu la Lissa Tine nekk citoyenne sénégalaise ëpp ko ay droit gënu koo dëkk ci réew mi ni mu prononcé woo ci ci ci dossier Adji Raby Sarr na ni prononcé woo ci dossier Lissa Tine la justice ni mu le dossier Adji Rabissar, nous dossier Lisa Tin parce que Lisa, Adji Rabissar, nous gënul encore une fois l'ISA. te nous lo xamanteni day ñew ci kanam état bi responsable yeglu nañu tay ay plan d'action yu béré Nous béré ngi ci suñu kanam te ndox bu je vous remercie